asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen na ngeen jël jàmm sur ma chaîne YouTube Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. Wes Show let's go nañ ko tëgg after coole ya. Haya si waaye matadi kasaramara awaga si waaye te dañuy ñëw wax si ki nga xam ni moom moo di jaari saw xale bu jigéen boo xam ni ñëpp a ngi koy wër defoon naa benn vidéo boo xam ni ne naa leen balaa ma ciy wax dinaa am li nga xam moom moo di cadre yu leer yoo xam ni mën naa si jëfandiku mais maanaam yoo xam ni publier nañ ko teg nañ ko si li nga xam moo toile pour mu mën ko wax parce que pas faire li nga xam moom moo di des enquêtes mënuma dem naan damay lijjanti lan la jaari saw def fan la nekk yónnee ay agence yónnee li nga xam moom moo di ay détective pour mën ko gis la seule chose bi nga xam moom laa mën mooy tirer mon opinion mooy maanaam jox ay sénégale lan laa xalaat si li nga xam moom moo di affaire bii nii aujourd'hui nag du ñu confirmer mais dañuy poser wu ay questions et je crois que ñun ñëpp foofu lañ toll mooy maanaam y a beaucoup de spéculation fausse y a de choses yoo xam ni génn nañ ko ñi nga xam ñoom ñoo di site yi yoo xam ni mën nañu réeral li nga xam ne moom moo di sénégalais. de ce fait boo la xoolee tellement que ils ont dit beaucoup de choses yoo xam ni c'est diamétralement opposé ak li nga xam ni moom moo nekk di xew ba sénégalais yi dañoo dem ba soofantal li nga xam ni moo di affaire bi képp koo xam ni au début amoon nga benn yërmande si li nga xam ni moo di envers Diary Sow tey ji ñu toll nii da nga dem ba jéppi li nga xam ni moom moo di xale bu jigéen bi benn parti bi nga xam ne dañuy gëm ni carrément moom moo def li nga xam moom moo ko tey moom moo jël bagage am daw ba nga xam ne dem nañ mën leen naan bu ñu sonal waay ah c'est affaire Diary Sow te pourtant au début ñun ñëpp dañ nekkoon ñoo xam ni dañu bëggoon aider dañu bëggoon découvrir xale bi fan la nekk y a d'autres boo xam ne ñoom ba léegi affaire bi dafa nekk loo xam ne dafa louche comment ça te fait ni que xale bu jigéen bi nii jékki-jékki rek réer ni sans pour autant donner signe de vie sans pour autant wax li nga xam moom moo di raison yi ñuy dégg li nga xam ni lu nekk sans pour autant ñu gis ko wala moom mu wax loolu moo nekk li nga xam moom moo di cadre général bi tey li nga xam la ñuy wax pour mën a wax si li nga xam ni moom moo di sujet Diary Sow dégg nañ fi façon expression yi nekk dégg nañ fa ay nit yu woote naan ay gisaane la ñu benn tubaab jaare fii woo na diw wax na ko yeggal fële site yooyu noonu pour am li nga xam ni moom moo di view dégg fi jaari saw dafa jël li xam moo di bagage parce que benn relation amoureuse euh, amoureuse la am mu daw dégg nañ fi li nga xam moo di xale bu jigéen bi moom ah bëggatul li nga xam ni moom loolu lañ ko yóbbee moo tax mu changé mais dafa ruus a dellu si en tout cas man si cas yooyu yëpp nga xam ni moom laay wax li ma mën a wax rek mooy jaari saw dafa bindoon benn livre livre boo xam ni bind na ko expliquer li nga xam moom moo di benn xale bu jigéen boo xam ne mën nañ ko wooyee alter ego alter ego mooy maanaam tay jii nii yow ni nga mel mooy maanaam sa seex boo xam ne sa contraire la même bu fekkee si livre bi kooku nga xam ni mu ngi tudd alin si livre bi nekk na koo xam ne am na yenn point yoo xam ne gis nañ ko si li nga xam moo di Diary Sow mais la quasi totalité dafa loo xam ne moom moo di côté obscur nga xam ne moom la Diary Sow am mooy maanaam moom mooy nit ku pur bi mais xale bu jigéen moom moo yor li nga moo di côté obscur loolu la ñu li nga loolu la ñuy woowee alter ego mooy maanaam nit ku baax nit ku normal nit ku yiw mais bëgg na dund beneen genre dund boo xam ni dañ ko ko tere loolu la def si li nga xam moom moo di livre boobu noonu tudd Aline l'autre jour bi nga xam ni Pape Djibril Fall mu ko doon posé question yi loolu la xale bu jigéen mi expliqué léegi de sa fa tey jii nii bu fekkoon Wesho benn genre nit la boo xam ni dafay kidnappé li nga xam moom moo di su ma kidnappé nit bi la meilleure chose mooy ma toog di suivre li nga xam moom moo di information parce que képp koo xam ne day kidnappé il n'est pas fou il est trop trop intelligent day basé aussi li nga xam ne moom moo di spéculation yi moo tax la majeure partie kidnapping yi nii policiers yi du ñuy bëgg gars yi di ko médiatiser wala di ci wax lu bari xam nga day nekk benn affaire boo xam ne c'est secret xanaa mu am benn fuite mais bu fekkee ne gars yi commencé nañ génne dañuy tere ñu bëri daal ñu commencé di ci wax ji comme surtout sénégalais yi man je crois que ni waruñu woon jël seen temps chaque jour par view pour mën a am li nga xam ne moom moo di wax bu bon wala wax bu fen wala wax yoo xam ne mën nañ ko génne si li nga xam moom moo di xale bi jël lépp nag ko si kawam sans pour am li xam ne moom moo leer si lépp si ay supposition jaare saw nag wax dëgg fa yàlla ki nga xam ne moom moo di kidnappeur bu ko gisoon liir na livre bi dégg na jaare saw bind livre dafay dem lire livre bi en français la ko bind muy olof muy sénégalais muy kooku noonu ko xam ni yaa ngi nga mën a lire nga xam ne livre bi lan moo si nekk nga comprendre li nga xam ni moom moo di xale bu jigéen bi après tu utiliser li nga xam moom moo di livre boobu noonu ak information yi nga xam ne sites yi moom lañ nekk di yónnee pour pouvoir xam nga déplacement yi nooy def ak looy def bind leen man jusqu'à présent je vous la vérité tant que gisuma Diary Sow def benn vidéo boo xam ne ñun mën nañ lire à travers les images ndax xale bu jigéen bi serein na xale bu jigéen bi mu ngi wax li nga xam ne moom loolu la bëgg vraiment parce que ak li nga xam moom la ñuy wax expression faciale moom na gars yi bari di utiliser pour xam kii ndax dañ ko kidnappé dañ ko forcer pour mu wax wala dañ ko wax loo lii nii wala waree ba là je serai tranquille mais tant que gisuma loolu noonu pour man jaaree saw mu ngi si jàmm wala nekku si jàmm man jusqu'à présent aw ma ci dara lu leer et j'espère que ni dinañ ñu wan xale bu jigéen fu mu ne tey jii bu ñu demoon ba jël li nga xam moo di mu toog mu ne bàyyi leen ma bugguma ngeen waxati si man ñu ko mu nekk de son propre gré sénégalais yi xam nga ni duñ mettre perdre seen temps di wax si ñoom mais ce qui est mooy mu ngi def li nga xam mooy dégg nañ ko xaritam bind na message li nga xam ni moom moo ni xaritam ñoom xam nañ ñu koy joindre xaritam yooyu noonu wax dëgg fa la façon spéculation bu nekk yu jékki-jékki jot li nga xam ne boobu moo di benn boo xam ne def ko jox li nga xam ne moom moo di monsieur le tey jii su ma kii jaare saw wax dëgg fa yàlla mën naa bind benn lettre boo xam ne day mel ni jaare saw moo ko bind su ma kii ne jaare saw day mën na nekk benn lettre boo xam ne day mel ni jaare saw moo ko bind kon ça veut ne la demande qu'on se mooy est-ce que jaare saw moo bind li nga xam ni moom moo di lettre boobu noonu point d'interrogation deuxième point bi mooy bu fekkee ni moom moo jël propre décision dem alors laa Diary saw dafa yàpp sénégalais dafay yàpp sénégalais yi que am na yenn affaire yoo xam ni boo bëggee jël sa bopp du kenn moo la koy tere tu es majeur yaa ngi France mën nga jël sa bagage nga dem fu la neex nga woo nit ñi ne man bàyyi naa jàng mënatuma liñ ma teg dafa diis pression bi du munatuma ko dund wareefu loo bëgg a def damaa bëgg a diw damaa def lii damaa def ni ñun loolu ça nous intéresse sa vie privée la ce sont des décisions yoo xam ni yow yaa ko jël mais quant jël li nga xam ne moo di say effet bi ngay naan xaw ma si man wane naa carrément ni man maa dem de mon de mon gré alors là loolu sénégalais yi nga yàpp et j'espère que ni bu fekkee ni loolu moo am non j'espère que ni sax loolu amul parce que tey jii nii bu fekkee loolu amul mën na tax sénégalais yi soofantal li nga xam ne moom moo di affaire Diarra Sow sénégalais bàyyi affaire Diarra Sow or que vraiment mu ngi en danger man daal pour man personnellement li ma mën a gëm li ma mën a jàpp mooy tant que Diarra Sow génnul def benn vidéo wala génn def benn appel wala génn def benn affaire boo xam ne nit ñi dinañ xam même bu dee appel privé la sax nit ñi dina choisir ne man personnellement man maa bàyyi lii mu continuer ba sénégalais dégg li nga xam ni moo di voix yi même bu ñu ko forcer sax mais sénégalais yi ko pour man ba léegi jaari saw kenn xamul suñu mu nekk n'a pas de bonnes informations loolu moo nekkoon li nga xam ne moom moo di vidéo bi may jégalu un peu si absence yi parce que il faut ma am li nga xam moom moo di cadre général pour mën a def li nga xam ne moom moo di chronique joxante nañu si beneen vidéo incha allah HMR tey vidéo dey dugg képp koo xam ni da ngay suivre rap mën nga ko kar si li nga xam ni moo di Here Money cause maa ngi koy bind fii li nga xam moom moo di now kana chaîne bi ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen